ne xamaguñu Macky Sall fan la ciy taxawal te bépp parti boo xam ne parti bu sérieux nga doon a xool Macky Sall mii maanaam di ko seetaan gëmm say bët dem ba dernière minute mu lay wax damay nekk candidat wala du ma nekk candidat loole bokk na ci li nga xam ne mooy salfaañe benn bokk yaakaar loole na ko ñëpp xaara yëre kaay gi di wal fajiri xëy di ñu xibaar na ñu ginnaaw investiture yi ci coalition benn bokk yaakaar li ñu ci nemmee ko mooy Macky Sall ci boppam dafa néewal doole Aminata Mbengue Ndiaye Aminata Mbengue Ndiaye mi jiite parti socialiste dañu koo néewal doole la ko waral mooy Macky Sall fu baax fépp daf koo jël ngar ndax daa jokkoo moom ak waa APR bàyyi ñi nga xam ne ñooy allié yi yéen a kaay gi de la témoin nee na moo taxit ñi nga xam ne ñooy waa parti socialiste tey jii ci alxames ci danañoo amal nag li nga xam ne mooy ab réunion ci seen chaise bi maanaam nag réunion la boo xam ne nar naa tàng jër ci seen chaise bi yéen a kaay gi nee na secrétariat national de tous les dangers noonu la ko tuddee ndax nag ñi nga xam ne ñoo mer ci parti socialiste yëpp tey jii danañu ko daal di wax ci kanamu Aminata Mbengue Ndiaye yéen a kaay gi de la tribune nag bu ñu waxantee dëgg Sénégal mi ngi jëm ci kaawa Sénégal mi ngi jëm ci kaawa day raam sa ñag ba jëm te bu fa amee kër du baax gaa yi nañ waxa yéen a kaay la turbine nee ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel maanaam ñoom dañoo incompétent te nag ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ñoom wax nañu ay yoon yoon na li xam ne mooy parrainage bu ñu ko dugal ci élection yi ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel daal di lànk ba waa waaye nag lépp loo xam ne am na ci mi na leen na seen loxo mi ngi bëgg a amal nag manifestation mobilisation ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam ni ki suba préfet bu ndakaaru nag daf leen koo tere préfet bu ndakaaru da leen koo tere ñoom Déthié Fall ñoom nag nee nañu nag juróom-ñetti fan ci weeru juin wi danañu amal nag mobilisation loolu nag kenn mënu ci dara yéen kaay gi Vox Populi nee na nag ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi li tax nag ñu daal di leen di tere seen manifestation boobee mooy fédération démocratique des écologistes du Sénégal ñoom ñooy amal foire ci place xam ne nag fa la waa Yewwi bëggoon Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Farba Ngom mi nga xam ne moom la ñu sàcc lu toll ci huit cent quatre-vingt-dix millions presque un milliard yéene kaay gi ne na ñi nga xam ne nag ñooy waa Forum Civil nee ma ñoom Birahim Seck mer nañu ba maara détail yi ba pare nag di sàkku ci procureur mu daal ci ubbi nag ab enquête yéene kaay gi délibération nee nag du Farba Ngom rek ndax un milliard bi nga xamante ni mbàkk yu fay joxe na ko loolee tamit gars yi sàkku ci ay leeral maanaam ministre Antoine Diome gàddu ab saak saak boo xam ne deux cent millions moo ci nekk mu daal di koy gangar gangaree yóbbu Touba ndax réew mu jaar yoon noonu lay doxee yéen kay gii di vingt ñu koy fekk fa ñoom Guy Marius Sagna nee ñoom waa Fra France Dégage ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax Farba Ngom mi nga xam ne moo jël xaalis bu nu toll daal koy denc liquidité loole nag yoon daf koy tere moo tax ñoom Guy Marius Sagna nee na ñu nag danañu saisir inspection générale d'État nga xam ne ñooy waa CENTIF ak nag am na mbir moo xam ne war nañu ko lijjanti ci réew mi jaay doole geek maanaam salfaañu loi yi nga xam ne moom la Farba Ngom mi ngi jege ñaala Macky Sall nekk ci réew mi loola la ñu xamul lan mooy ndayama te nag lii mooy violation code général des impôts am na loo xam ne dañu koy tere maanaam nga bu xaalis daal maanaam di nekk ci àll bi di taxawàlloog mama yéene kaay gii de la sa njiit réew mi di président Macky Sall moom nag ni ki démb ci conseil des ministres wax na Marie Khemesse Ngom Ndiaye lu leer ministre de la santé bu bees bi nee na ko mbooleem li nga xam ne ay jafe la am ci wàllu wér-gi-yaram gi yow bëgg nga lijjantil ma ko ci ni mu gën a gaawee yéene kaay gi di réew mi ko di cee nee na bourse familiale yi nag jur na njombe bourse familiale yi jur na njombe ndax dafa am benn soxna boo xam ne juróom benn fukki at ak juróom la am ca diwaanu Kaolack da doon rang ngir nag jël bourse la ma waaye nag dafa mujjee daanu malaise ñàkk bakkan ma yéene kaay gi di réew mi ko di cee nee na li ko waral mooy bourse familiale yi maanaam jot si jafe na genn xedu jafe goo xamante ne maara day kaay gi nee na waxtu yu bare bare bare bare ngay def nag ngir mën a jot li nga xam ne mooy sa bourse familiale jaal ndax nag dégg mu ne koo jara yéene gi ne na am na sax ñoo xam ne nag dañuy fanaan dañuy fanaan yéene kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu bëri na ay sénégalais yoo xam ne jamono jii dund gu métte métte métte la ñuy dund la ko waral mooy dund si boppam moo cher yéene kaay gi ne na njëg yi nga xam ne yokk na ba maara détaillé moo tax na góorgóorlu yee ñi nga xam ne seen loxo jutul seen ginnaaw jamono jii mere nañu lool lool lool Macky Sall ñi nga xam ne daal ay góorgóorlu la ñi ndool ci réew mi mere nañu Macky Sall dund gi si boppam moo jafe ci réew mi loolee ñëpp ci teg seen bët yéene kaay gi du l'observateur nee na nag tabaski gi nga xam ne moom la ñu dëgmal tabaski gi nar naa métti de tabaski gi nar naa métti de tabaski gu méttee méttee métti moom la askanu Sénégal nag nar a dund rawatina gis xar mu baax ci réew mi loolee moom mën naa jafe la ko waral mooy xont bi nga xam ne nag moom la ñu war a xontee xar yi xont bi nag nit ñi gisul moom la ñu gisul moo tax nag soo muy tulee daal maanaam tabaski gi moom bay boo ñu xar mu méttee méttee méttee yéene kaay gi di Sud Quotidien ñi nga xamante ni ñoo dëkk Kër Massar ñoom tim sonn nañ ba maara day taale jamono ji nelawutuñu ba yandoor li ko waral mooy nawet bi inondation yi yéen kaa gi ne na moo ne ay milliards yi milliards yi dugal Kër Massar ca bi waaye nag ba léegi France dali xëdee nag fukki millions ak juróom ci septembre 2020 waxoon nañ ne moom lañ dugal Kër Massar Omar Gueye ministre dem Kër Massar waaw naan leen jamono ji maanaam inondation yi moom bay boo ngeen xam ne jeex na Kër Massar yéen kay gi di sud nee na nag dafa mujjoon tawaat daal taw bu yamama yi Kër Massar askan wal tëmbaat ca ndox ma jamono ji génn war nañ fukk ak benn milliard waaye milliards yi nga xam ne moom la ñu dugal Kër Massar ba léegi jafe-jafe yi yi di am ana milliards yi fan lañ ko dugal nan la ñu ko jëfandikoo loole la ñu war a laaj yéene kaay gi di wal fajiri xëy di ñu xibaar naa ñu nag BRT bi liggéey yi travaux BRT yi nar naa jur loraange boo xamante ni maara détaillé ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci wetu fi ñuy liggéeyee BRT bi ndax nag nawet baa ngi ñëw moom yéene kaay gi nee na baye boo ñi dëkk ci wetu BRT bi fi ñu koy defee baye boo ñu xaar ay jafe-jafe yu métte métte métti ci nawet bi bu tawee yéene kaay gi da la soloy xëy di ñu xibaar naan ñu njiitul Union africaine ne ma dina nag